asalaamaaleykum Moustapha nuyu nañ salaam maa ngi leen di nuyu nuyu bi gën a sedd nuyu bi gën a sell di leen bégal di leen dalal waaw. Euh, kontaan nañ tey ci recevoir bi nga xamante ni recevoir ñu nga ko nga ko waaye tamit euh, ñëwal Sénégal yëpp ah parce que yaakaar naa ne xam nga ne nit ñi namm nañ la. waa loolu am na Sénégal yëpp nam nañ ma waaye luñ mën naw lu ne maa <laughs> leen raw lu bëree bëri vraiment di leen nuyu ñoom ñëpp di nuyu Sénégal yeeg fan si tafaat yeeg ñëpp ak ñi nga xam ne ñoo bëgg Tapha Tine te yàlla tax leen ñaanal di ko ñaanal partout te mosuñu gis Tapha Tine daal maay bëggee ñëpp waaw. xam nga ne Tapha Tine sénégalais bu ñu la gëjee gis da nga leen di manqué parce que dafa am lu may faral di wax nee naa leen Tapha bu génnee ci làmb su bëreegul sax mais ni muy waxtaanee noonu olof bi nga xamante ni dafa takk séeréer loolu rek daf ciy daaneel nit ñi surtout nag show bi nga xamante ne moom lay indi ci làmb loolu dafay manqué nit ñi bu baax a waaw dëgg la ñun ay ay doomi séeréer lañu ay village waa lañu xam nga c'est normal bu ñuy wax suñu làmmiñ xaw a am tuuti. noonu noonu la mais yaakaar naa ne du ci dara Sénégal yi dinañu comprendre quoi. noonu la nit day fier ci lu mu doon mais lu tax nit ñi gëj la gis ci làmb ji. non pourtant ñu ngi may gis ah ñu may gis ñu ngi may gis boo dimanche passé rek maa ngi woon stade. waaw gis naa la ci làmb ama seen Modou Lo mais boobu taxul may wax gis bi ñu la daan gis bëree combat voilà signature contrat yooyu la nit ñi wa dëgg la ren mom moy lol ren ku na xamne tafatine signé gul ben combat daw say may don préparer mu mu fekkon États-Unis may paré sama combat ak Balla xam ren nak heureusement amaguma combat may tok promoteur yi ñu may contacter may tok di xaar bu combat ñoy ñu sék bëre rek amul problème voilà. moy lol, kan mo la contacter Gaston Aziz ndjay Serigne Modou Niang wala kan. non man boo xoolee samay combat dama ko partagé ak promoteurs yi tey promoteurs yi mën naa ne bu ñu nee dix wala ay douze personnes bëreel naa ku ne ñii bëreel naa leen deux fois ñii bëreel leen benn yoon am na ñu ma ciy contacter du kenn du ñaar. mais fi mu nekk nii xam nga ne combat yu mag yi xew ci làmb Aziz njaay moo koy tëgg loolu xam nga ko. non dëgg la Aziz ci la loxo mu ngi ci mais nag am na yeneen promoteurs yu fi nekk ñu ngi teg ay combat bien ay combat yu mag la ñu taxawal.

mu farak bal mënuma ci dara loolu fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi. lu tax xamee woo ko woon noonu bi ngay kaas noonu. mais xama xama rek xama loo xamul xamoo ko mais ñun ñëpp benn lañu promoteur muy mbër ak journaliste comme yéen benn lañu ensemble bu ci manqué bu ne lam day am problème. après dañuy déggante téléphone combat bi déggante nañ bi combat bi passé après lendemain déggante nañ téléphone avant combat bi ñu ngi doon déggante lu bëri bëri fi ñu fi affaire bi jeexee fi ñu daje Liberté 6 man ak moom mu ne ma eh booy takk ci rip géej naa la gis xam rek mooy loolu. mooy takk ci rip la nit ñi nam <laughs> mais depuis mu niin ci batt ba léegi dafa mel ne ku dem benn côté toog jàpp njàmburam lu tax loolu. non demewul noonu xam nga xam nga làmm moom boo ci jógee encaissé benn défaite défaite bi wàññiwu la dara. lam moom noonu lay demee en général saa boo jëlee défaite da da dem defaru jiwaat boo amee victoire da ngay dem pare jiwaat. mais yàgg sa adversaire Balla Gaye bi nga doon bëree le roi des arènes yaa ngi ko yéen a ngi déggante yéen a ngi am jàmm. bala gisee nañ lam ji dimanche rek amuñu benn problème moom yàgg nañu xamante depuis temps booy depuis temps ba pat xam clash yi nga ko fi clash bi ngay bëreek moom napp ko noonu show xam nga. non yooyu du ci dara sama euh, kii ak Bombardier moo gënoon a tàng foofu boobu dem nañ ba tegante ay den xam nga Jurbel ma moom ma tuus ba pare ne ko fii doo fi tuuse xam nga kon loolaa gën a miti. foofu yow yaa mel noonu da ngay nappee boo jàkkaarloog mbër yi da nga leen di napp xam nga créer benn bataille psychologique noonu nga xam ne da nga leen bu ñoo jàkkaarloog yow dañ lay mere ba da leen di déconcentré lool nga ci bëgg pour après nga dóor leen daan leen. non demewul noonu xam nga lam mooy tëdd noonu lam souvent da ngay xaar sa moroom per benn affaire nga jël ko ci moom comprendre loolu lañ ko jubloo rek mais du dara mais boo ñu fekkoon benn million woo xam ne caméra newu fa dara newu fi. wala boog ci place yi nga xam ne la ñuy entraîner nga xam ne ñun ñëpp benn lañu. wala yéen ñëpp benn ngeen. yee dimanche bi ma dajeeg bala rek firndeel na ko dañu daje rek alors booy ci loo ne gëj naa la gis yaa ngi ci jàmm ça va ça va ku ne dem te loolooy lam aussi dañuy xool suñu paa yi nga xam ne ñoo fi nekk instant yi buy ñëw lam yor ay cruise affaire yooyu foofu rek la ñuy xool te xam ne lii affaire ndaw la quoi. Ah, dañ ci toll di ko def. benn dix ans ci kanam surtout. yéen ñëpp ngeen màgg dem lafu ne créer ay écrit yor buy wax waxu magat ñaanal ñu fekk kanam cent trente ans. non mais ñaata at nga am parce que mbëri yi ku ci am trente cinq ans jeexal na de. non man bëriwut ay ay dix huit ans ay seize ans waaw jëm vingt ans affaire yooyu. waaye doo ma bàyyi yow xam nga ne am nga 30 tafa bàyyil di ma napp mbër yëpp def naa xarañ loo ci gën a ndaw ak Balla Gaye at yi moom ci mbër yu mag yi VIP non at yi moom bëriwul ñooñu moom samay samay la ñooñu moom buñ ma magut vraiment maguma leen hmm. waaw ce que ñeme nga booy parcelle bi xarañ loo xam nga ki may wax booy bi mujjee bëre dimanche ah ok ah Modou day la gis nga dimanche passé def na différence bu rëy dem na daan champion bu mag ñu koy wax ama seen di ko na ndamam jig ko dafa ne ndax ñeme nga ko. mooy li ma lay wax Tapha Tine moom boo amee ku mu rajal ci lam moom teel a dellu reefan waaw wër. booy bi xarañ na de. te dafa mel ni ñu ngi koy dox est-ce que ñu ngi koy dox sa diggante. xam nga ay man ay camp Modou Lo ak beneen mbër keneen laa yemale man loolu du sama problème. soo ragal daal guerrier nga yow. man aw xam nga. maay noo kenn. man booy xool sama écrit bi ñu ko taxawalee dafa yàggul dara. ay quatre ans ci la nekk. liggéey bu gaaw ak gem sama bopp moom ma egsi ma exi bu ma dem doon xëccoo titre roi de Sarène mu ñàkk ko kon mun naa ne sama flag sama fayda moom ma indi fii. ne ba tey bàyyeegoo. non never give up lu tax may bàyyi pourquoi. non bàyyeegoo ci titre roi des arènes bi nga bëgg da nga koy ñafe ba ba nga fay yegg. ma mën a bàyyi du ma mën a bàyyi noonu ay xale lañu comme man. mais est ce que nekkul ne da nga xëy rek bëgg a tëb yootu roi des arènes parce que. Euh, dama liggéey dama liggéey ba exi man booy xool ponkoli bañ ma tegalee Bombardier tegal ma Elton ma jaar seen kaw ay cek ñoom Abdou Diouf. kuñ ma ñooñu da nga leen dóor ba ñu kaw mais gisuñ fa bëre Tapha dafa mel ni dóor la gën a mën ko bëre. non si daane naa fi nit nu ne ah yëkkati naa fi nit bëtti naa fi nit yenu naa fi nit dóor ci suuf duma na fi nit arbitre yi nangu samay loxo ne ma lam ji jenal borom meunatul dem ah parce que bombardier non la demé décision arbitre mo len tas mo len mo len séparer yak mom dafa tin nu ne la moné nak non mais ay dor mën na fighting mën na beuré fighting bobu nga wax mom nga man da ngay dem amerique di jang kur pañ bo ñëwee di xawara a mbeur yi pour lan lolu non non fighting fi la ko jàng sama entraîneur mu ngi fi samour fawas ben libané bobu ngeen may gis may andal tout temps mm. moo may jàngal yaa ngi contact di di mbapat hmm. lay léegi dañuy mbapat ci lamb ji de bo mënul mbappat boo dajeeg xarañ du bax de man kuma xam ci mbapat nga ma xamee fu may gagné ay ay gros sabu ay ay saku ceeb ay ay 4000 ak 3000 xam nga foofu nga ñëkke ba léegi ngay laal ñaata tout rek bari wul ay 30 millions 50 waxal rek 30 millions 50 wa alhamdullah 30 millions 50 lu bari la yàggagoo foofu yag balla gay luñ la fayon cachet ah pour man mm-hmm. romb nga foofu kuy bëreeg roi des arènes kay ñu war laa mën a fay cinquante millions wala wala trente sax minimum. bëriwul woon daal en tout cas fay nañu ma kase bu ma jaral ma dem bëri ji voilà. bi nga xamante ne moom nee na fi ne yow la soxla looy wax ci loolu. yow xanaa tey ji kenn yónniwu ma dañuy waxtaan parce que nee naa la sénégalais yi laa fi toogal dañoo gëj a gis tafaatin bëgg waxtaan ak tafaatin tey nag ma ñëwal leen fii ci tafaatin toog ak moom waxtaan ak moom li ngeen bëgg a laaj bëgg ko xam yëpp maa leen koy laajal xoolal tontu ma nit ñaa ngi lay seetaan waxal fii loo wax sa diggante ak Balla Gaye mi nga xamante ni yow la soxla. non baaboy baaboy mbër la xam nga la def na fi lu ne man naka sonn comme li may wax rek man néew ma fi naan A laay moytu wala B xam nga yi ñu ngi fi mbër yaa ngi fi amateur yaa ngi fi ñu xam lam ñu ngi fi xam nañu ñan ak ñan ñoo war a bëre man ku ñu ma ci xool ba ne diw war na maa moom te mu jaadu te man ma xam ne war naa bëre kii damay segg bëre ñu dem signé xool ba xam. ku ne dem ci waaru dem liggéey. léegi pare nga pour jox ko chance am Baboye pour jox gan sens man baaboy ci lam laa ko fekk depuis année xaw ma ban année man 2005 laa dugg ci lam. waaw mais mbër yu bari dañuy bañ a bëreeg moom parce que nee nañ màgget la jeexal nañ surtout que yow mi nga xamante ne nag. ñu ndaw ñi sax attanuñ say dóor ma sama ak baaboy nag est-ce que mën nga koo may chance. te nga def ko ndànk. non mooy li ma la wax rek bépp promoteur bu soxla sama combat A wala B man Tapha pare naa pour segg. moo xam ala moo xam beela ku mu mën doon tudduma turu kenn ci ñoom néew ma ci kenn laa soxla wala kii tolu ma foo xam ne ne damay toog naan nañ ma jox kii wala kale xam nga liggéey naa bu senegal yëpp xam ne Tapha liggéey na man loolu laa soxla woon am naa ko benn affaire dafa am ci làmb ji liggéey boo egg fa ñi ñuy wax ay tanoor man loolu laa def dama liggéey te kenn mayuma benn loxo dañ ma jaarale yoon wu méttee méttee métti ma reyante bu génn ci mhm. xam nga kon nag dootuma toog fenn naan kii laa soxla wala kale. mais xam nga ne mooduloo Lo dégg nga li nga xamante ne moom la wax. non non dégguloo non man dégguma ko maa ngi woon ci albi depuis depuis samedi mooduloo jour bi nga xamante ne daan na Eumeu Sène. waaw dañ ko wax ni ko dañ lay jox est-ce que du euh, baabo kii nu mu tuddati Balla Gaye ak euh, ki nga xamante ni mooy Bombardier ku dajeek ñoom. ñu door la léegi Aziz ne pourquoi pas Tafatine Tine léegi mu fin de saison lay mois de juin donc presque moi tëj saison bi kon du arranger parce que bëgg na beneen combat ci biir saison bi léegi pourquoi pas Tafatine Tine yow est-ce que paranga yow ya ko xol wala Modou ko non xolal yaa ma gën xam li ma lay wax. non dégguma vraiment dégguma Yalla xam na ne. waaw léegi Modou Lo nee yow la soxla. en tout cas lolu bala ma ci mëna wax. ma dégg ko ci làmmiñam. Aziz Ndiaye nga koy dox wala doxu ko. même dégguma dégguma kenn dégguma benn ki contacté ma pour kaw Modou Lo en tout cas am na promoteur yu may waxal. man sa diggante ak Modou Lo. mën na nekk moom mën na nekk ñeneen. non wax ma Modou la nit ñi di xaar nga fi baabooy laa fi tudd <laughs> sa digganteeg moom ak Modou Lo fi mu nekk nag waxatuma waxi baabooy ndax nit ñi fi mu ne promoteur yi li ñuy dox mooy Tapha Tine xarañ Lo. parce que loolu combat la mën ngaa dóor waaye macha allah mën naa bëre. loolu dafay neex te nit ñi moom la ñuy xaar léegi wax ma ko. waa waa amin yàlla na ko yàlla def mu taxaw rek. comme que man aw ma combat awmul combat yàlla na yàlla def mu taxaw. Hmm. loolu laay xaar di ko ñaan yàlla. war ngaa que waroo année blanche ndax sénégalais yi namm nañ la macha allah dafa am show boo xam ne moom ngay indi ci làmb. waaw combat Tapha Tine nit ñi dañ koy xaar parce que dafa neex. wër ñoo xam nga ay séeréer lañ bu ñëwee ci esaat bi dañ koy neexal ba mu neex. mën a fecc teg ci. dañuy gudd ba mu neex ñu gàtt di ko saxal ba mu sax. jeena kon yow xool nga yëf yi bu baax. xool naa ko ñëpp xool nañ ko moo tax ñu namm la. Mhm. léegi nag euh, li ci des mooy promoteur yi laay xaar man. mais koy dox nag Aziz Ndiaye ngi koy dox nag Tapha nag waxal ak man nag. en tout cas néew ma la promoteur kii la wala kii en tout ñu ngi dox ñu ngi. am na ñu may waxat am na ñu may dégg téléphone. sa digganteeg Modou Lo Tapha dafa am. benn staff boo xam ne nii. ok doo xam ne du toog tamit jékki-jékki rek jël xaalis te amul ñu mu waxal bu pare. léegi sama xaalis samay signature dafa am ñu ko yore damay signé ñooñu signé kon c'est normal nga dem wax. léegi cachet bi ñu la fay dafa baaxul moom ngay xaar wala. problème mu cachet moom walla asim yéeguñu ji. ci dañ koy dox nii rek mais cachet moom waxagu leen ko. kase yëguma ci kase yëguma ci kase. <laughs> am nga fayee ñaata nga bëri ko. licence xam nga lamb lamb léegi moom bëggul comme c'est-à-dire yàq mbir mun ngeen ñàkk yem quoi kenn ku ne day dem waxaale li lay jaral nga dem. non fi mu ne moom bu ngeen bëree moom moo lay gën a fort parce que moom moo jógee ci victoire yow nga jógee ci défait dafay am. Ah, am. Sénégalais yi ma soxla de lu leer laa lay wax. na moom. Sénégalais yi soxla de waaye booy bi ne gën naa yëg de est ce que doo dem mu wàcc la fi ne yow est ce que pare nga physiquement ak yooyu entraîné nga ba leer la ne boo dajek xarañ wan ko ne ko di nga ci taqrib. man maa sama place nii fii yëpp boo gënoon xam nañu koy tafaarin fii laay entraîné sama fii ak maintenant bi des fratil di dañ ma gis mooy physique. waaw. Mm. kon daal moom dina ci takrib. bon lam la lam ju rëy lay nekk ah, pour pour dina ci takrib ni ngay wax gaa yi wala du ci tak. <laughs> du nekk lam joo xam ne nii lam ju yomb la nekk. dina ci takk wala bëgguma mo bëgguma ñuy ini ci ci ci ci benn leader leader yi mais xam nga da nga doon wax bi ngay bëreeg Balla Gaye naan ko di nga ci takk rib xam nga loolu balaa ñu fay egg slogan la boo xam ne nii balaa <laughs> daan yegg taxaw signature contrat ah. foofu la fi ne koo ma la gisee physiquement la yi taxaw nga wax ji dañuy wax ji mm. wax ji ji comme nañ ko doon pratiquement déggoo ma ni la taxaw nga ñoom ñëpp kay bu ñu jeboo pare xam ne am ngeen problème. macha allah waaw ñu liggéey li ñu war a liggéey. Hmm. ñuy suñu écrit di liggéey ak boy yi. Hmm. amuñu benn problème. koo dajal mu takk ci rek. waa bu wër. Hmm. <laughs> Ah, yi nga xamante ne yéenay tëgg làmb yi Tapha Tine nee na pare na physiquement ak moralement léegi nag lu muy xaar yow Aziz Ndiaye mi nga xamante ne yaay démarché. Gaston Mbengue ak. Euh, Nicolas mi ci kaso bi ñu koy ñaanal mu génn. yàlla na ko yàlla génne ci fi mu nekk nee na mën naa am sax xëy na mu tëgg boobu. waaw lig lig maa ngi koy ñaanal maa ngi koy ñaanal xaw ma neuf mois ko fa des xaw ma huit mois wala sept maa ngi koy ñaanal yàlla nañ ko wàññi wàññi ko wàññiwaat ko. ba mu tëgg sa combat. très bien alhamdulilah loolu laay ñaan. yàlla na ko yàlla def kon yàlla na ko yàlla def kon lan ngay wax sénégalais yi nga xamante ni ñoo lay seetaan te namm la. waaw di bigam ñëpp rek di leen nuyu ñoom ñëpp di la nuyu yow di la jaajëfal di la jéeglu ci temps beeg yëpp di nuyu sama fans yeeg waa Medina bi yëpp xam nga ak képp ku bëgg ak sama gars yi nga xam ne ñoo nekk New York City Harlem Bronx ñi nekk euh, fële mm, ni ñu koy waxatee Washington sama gaa yi nekk foofu yëpp maa ngi leen di nuyu ñoom laay ak ñoom Thiam. ak ñoom mer Ndeye Fall ak ñëpp maa. moom kaana la kaaw bi lay dund ka Amérique lay dund. <laughs> waa dëgg la fa laa xam fa laa mos di dem samay combat yu bëri foofu laa koy dem préparé xam nga normal bu ma tiimee micro ma nuyu sama gars nekk foofu ñoom ñëpp voilà. kon nag euh, lii lañ leen indiloon ci entretien bi nga xamante ni amoon nañ ko ak Tapha kontaan trop macha allah ci euh, léegi kon ba tey nuyul waa Medina Medina. waa di jéglu waa Medina di leen xam ne combat bi fi amoon. mooy coow loolu ñu fa doon dégg mooy problème mu nag boobu ñu reyoon ci Médina bi maa ngi jéeglu Médina yëpp te di leen xamal ne affaire boobu képp ku ci sa loxoy laal rek écrit tafaatin moom dégagé nga fa léegi bokkatoo ca quoi. kon nag bi dëgg la woon. non nag bi dëgg la gis naa ko ci télé laa ko seetaanee comme ñëpp mais nag bi ña ko fa indeeg ña ko jënd ku ko laal rek écrit tafaatin moom bokkatoo ja gedd nga ko daal mere nga leen carrément parce que santoo leen loolu. defe nañu boo xam ñan ak ñan la. ci say àndandoo lañu bokk. en tout xaw ma ñan la mais. non boo nee nag bi ku ci laal. bokkatoo ci écrit tafaatin te tafaatin dootoo ko jege ça veut dire kon xam nga ne ñi def nag bi doon nañ la jege ci yow lañ bokk. képp ku laal ci nag woowu ña ko fa indeeg ña ko jën ñëpp dégagé nañ leen ci écrit tafaatin bokkatuñu ci vraiment wax dëgg yàlla lu ñaaw la. lu ñaaw te Sénégal gépp gépp a koy ñaawlu man Tapha Tine maa ko jege ñaawlu ko seetaanee am naa lu ma métti lool lool lool vraiment am naa lu ma métti te ko fa indi ñëpp xam nañu leen xam nañu ñan ak la képp ku ko fa indi te nekkoon ca écrit ba dégagé nañ sa loxo ci écrit bi boo ko toojee waaw loolu man Tapha Tine maa jël sama responsabilité bopp du kenn moo mën a jëlal lii wala lee man Tapha ko jël parce que kenn kenn amul lu leen métti bu raw ma man Tapha waaw parce que yu ñaaw yu mel noonu tamit dafa nekk yoo xam ne vraiment c'est ay éviter parce que tamit euh, loo xamante ne la benn sénégalais rafetlu wu ko woon heureusement bi nga xamante ne yow mi nga xamante ni yaa nekk foofu euh, jël décision bu toll ni dégager leen ñoom ñi nga xam ne ñoo def loolu loolu yaakaar naa ni sénégalais yi nañ ko rafetlu bu baax. affaire yu yàq dër la affaire yu tilimal deru jàmbur la xam nga ñëw nañ ci quartier bi dem ci chef de quartier bi ne nag wi nagu tafaati na tafaati ni yéegul moo tax man ma jël sama décision bopp. am na ñu ca laal newoon ci écrit bi ñoom ñëpp dégagé nañu leen man maa jël sama décision bopp ku laal ci nag boobu rek dootool jege tafaatin yéena yow daal lu rafet ngay wut bëggoo lu ñaaw làmb sport la kaf la ree xam nga ku bare daan mais soxlawul daal yenn yi daal. waaw sport la foo la ree la mais nag dafa ànd ak ay ñaan man li ma xam ku ma xam-xam ne refan laa jàngi alxuraan ci daara oustaz Faye bi nekk foofu xam nga kon duma def lu ñaaw quoi te aussi damay sàmm dama yor ay nag yor ay xarak ak lépp. fële ca Réfane. voilà kon du ma xool lu ñaaw. Ah, kon kay yow yaa ngi investir ci élevage bi ci nga nekk. demul noonu sax mais xam nga comme comme comme dama lay woon ne man duma xool jur ak yar yërmande bi ma am ci jur di ko sol ay sàngara di ko rend di taxaw ci bopp bi di ko santaane man duma def lu mel noonu. c'est violent.